leer ga ni ko ini nii ana allah la ilaha illa ana faabul nii man a yàlla jaamu ma mu ni ko rabbi arini anduru daataka ki ma ni man a ki laa bëgg a gis mu ni ko lan tëree doom a gis lan taabil la càtte bayaan waxu ko lam tëree nii waxu ko alam tëree nii lan la ko wax te taabit la doom a gis yaa duna mukk gaa yi service caméra tangoog waaw Moussa ñëw na jabalu Tuur yàlla ko summil see daal fii kenn du fi soli daal ndeysaan ba muy wax ak moom sax ishaaratu da nga fekk lu jege nga jox ko lu sori ngir màggal da nga fekk lu sori nga jox ko lu jegeñ yàlla bi mu naan Muhammad bi mu naan Moussa wa maa tilka bi yamiinika yaa Moussa tilka ka tilka taalika wa tayka tayka wa tiika tiilika wa dayka dayka wala la ba wax bi daan wax wa maa tilka bi yaminika yaa muuse mu mel ni kat Moussa da koo sori te jege na ko màggal gaa tax moo na ko ne asaaya wa hiya asaaya samaw yata ma ngay bànneexu nag ndax waxu yàlla dafa neex atawakkalu alayha wa awushi biha ala ganami waliya fiha maariba uxra yàlla gën a xam yépp waaye ku wax ak yàlla nag doogoo gaa bàyyi waaw mu ne ko summi see daal fii kenn du fi sol daal ki ma ni man laa bëgg a gis mu ne kenn du ma gis leer ga feeñu ko leeru yàlla fa jaaloo dakkan waxara Moussa saayixan waaw yent yàlla Moussa nan la koy leeru yàlla waxuma yàlla jëmmam kat leer ga laa wax nan lay feeñoo Moussa Moussa mën la sippati ba xam terib yonent gaa ñi ah ba leen seen xel ci seen bopp ah falammaa tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa xarra Moussa saa'ixan doj ja sax doj ba sax mu ngi def ñetti doj la waxut ca la bokk sabir ca la bokk xiraa ca la bokk tojat ya maa la ko wax am na ñeen fukki fan wax ju mu dégg wàccu ndax waxu yàlla ja maa la wax loolu waay ba ba muy faatu burtu ngeen lay amee waaw su mi say dàll doom a gis leer ga feeñu ko mu xam muhammad yàlla bay ba minuit vingt mu boole jibril mikaayil asrafil asrail juróom-ñaar fukk junni malaaka ak alburaax ni ko woo leen ma muhammad lu may doyee mu ni ñëwal mu ni la dox la ba nga ni doy na ñu tëngam ko jaar baytul laham jóge fa ñëw mayet madyana jóge fa ñëw baytul maqdis mu dekk yonent yëpp muhammad yi teen ba teel samaan juróom-ñaar ba raf-raf ba sërifu la xalaam nga ngu ni nga dëkk lu mu dëkkee attaxiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayyuha nabi muhammad xuusa ki dàllam ba ko summi yàlla ni ko agsi lak say dàll wax ak yàlla wël bi ko di ba setul waaw ba mu waxee moom lan la ko jox lu mu ko jox lu mu ko jox sërite julli aj suuf la ko joxe koor suuf la ko joxe azaka suuf la ko ko joxe julli kaw la ko joxe kon ah bàyyi leen seen xel ci julli bàyyi leen seen xel ci julli asalaatu imaadu diin fa man tarakaha faqad hadima diin muhammad nee na julli mooy kanu diine ku ko mabb ku ko bàyyi mabb nga diine asalaatu fi diini karaasi fil jasad muhammad nee na julli ci diine mi nga ne bopp ci yaram bu daggee mu perdi te kat fa waylun lil musallina ladina hum an salaatihim saahuuna yàlla waxul ñu jamañ ah jamañ ñëpp a koy def fa waylun lil musallina alladina hum fa waylun suñ cheybatu yal na yàlla sara ya xam moo ko daan firee fa waylun waa naa xurwu di berberi ca safara ledina ya nga xam ni hum ñoom saahoona way sàggan nañu an salaatihim bàyyi tisbaar ba tàkkusaan nga la rek timis ñu la yàlla tëkku ah boole suba tisbaar tàkkusaan ba timis nga la rek julli naa ma woon jot ñooñu la tëkku waaye ku bàyyi julli taxul ñu wax ndax jamaj Muhammad a ko jëkk a def kon bu ñu ne saahoo na waaye jamaj sallallahu alayhi wasallam dafa julli ñaari rakka ne assalaamu aleykum su lee day di nag saxaaba la bu am fulla mu ne Muhammad aqasata salaata am na seeta ya rasulallah moo da ngaa wàññi am da ngaa fàtte Muhammad ni kullu dalika lam yaqa wàññi wu ma fàtte wu ma mu ne ko balee moo tax kullu jooju waa mantiq boo leen ko ci kulliyatu kullu bun jun wa kullu bun jun bun wa maa baadu jun bun dama ni kullu dalika lam yaqa kullu jooju waa mantiq boo leen ko ci kulliyatu ndax leen la ca jibril ñëw déey ko ni ko sama borom nee na nga jógaale kabbar indi ñaari rakka boo noppi suyot baada salaam kon loolu yàgg na waaw waaw mu ne ko sumi bul sumi see dàll wax ak Muhammad bët setuwul mu jox ko nuyu nag taxiyaatu kuy taaya kuy taaya kuy taaya bés bu ne nga jaar ca loola ndax la ko yàlla sargale woon gis nga taaya sallim ala muhammad kama salayta wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi lalamina innaka hamidun majid lu tax duñu ci yonent yi ci def ala ibrahima lay wax de te aadama ko mag mooy jëkk premier yonent waxuñu ala aadama lu tax muhammad ba muy riñaan ba dem ci Ibrahima moom da nga ko ñaan aw xeetam yonent yi muy romb yépp moo ko ni maa ngi lay sargal di ñaan sa xeet yàlla na ko yàlla barkeel looloo war a taaya ñu dolli ci lii te Ibrahima rek lañ ci tudd ba mu wëlbatikoo nag moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mu yamaat wa kaana yaamuru Muusa demal ma dem waay mi ngi bëgg a guddi di waay
فرجع إلى رحمن مستنقلا قبل الهدى كرم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما أما بسبيم وساب مستنقصا للخمس ثم غدا مستحيا مواسمهم يرجو من الله عونا غير متصل فبايع الكرام الان صار في العقبات ربي اصبر عليه وبلا الكرم بالجلم على النبي وعليهم أجمعين السلام ربنا دائما عام بسبيب
waaw waaw tafsir bu sama jigéen ñëwee xolam dana sedd seen xol dana sedd waaye labraar nag moom ah sama secrétaire sama secrétaire lu taw taw ma ni jógal lu ruq-ruq ma ni jógal lu lëndëm lëndëm ma ni jógal lu sori sori ma ni jógal jaaxaan waaye nag waaye nag yaa man xadaa raaida alxayraati wa niami fa qif ala baabi ummi alxayri taxtanimi nee na wakkaane nekk na Muusa Muusa yaa mën a digal Muhammad arrujua dellu ila rahmaani jëm ci yàlla lu tax mustasqilan mbiram nekkam di sakku diislu xamlal huda yenug aju jub ja alkarami karaaji tëdd mooy muhammad imraatun karamun rajulun karamun min xiiratin karam min xiiratin karam wa saaba dellu na moom muhammad mustanqisan mbiram nekkam di sakku wàññilu juróom fukk ya lil xam si ba ci juróomi julli suma xadaa mu mujj nag mu saxiyan daaja sàkkoo kersawu daal waaw xaaji Maalik nee na inna daaka al badra inna daaka al badra waxul badru waxul badru inna daaka al badra inna daaka al badra بدر وإن أتى قسم معرف بأل بعد إشارة فنعت أو بدل إن ذاك البدر ذاك دوتي خم لسمو إندجي بدر بدر مولا كوي وخ سورة مديو دي خبر إن ذاك البدر نكلا ولا وير ذرة من برم كرسل دال ñu di déedéet déedéet lu tax wa sirru fii qawli Muusa id yuraddiduha li yajtari nuuru fiihi xaysu yashaduhu yabdu sanaahu ala waji rasuli fa yaa lallaay xussa kamalin kaana yashaduhu comme yàlla dafa ni Muhammad Muusa dafa ni yàlla ki ma ni man laa bëgg a gis mu ne ko doom a gis Moussa profitoo ko moom gisul yàlla te gis na ku gis yàlla moo taxamaan ko dellul ñu wàññi la daf ko romb mu ne ko na nga def sama borom mu ne ko jox na ma juróom fukki julli mu ne ko saw xeet ak sama xeet du duñ soree te loolu diis na nu ko jàkk nag xool mu ngi bànnee xodi dawal mu wàññi la mu dem ñu ko mbir mi ko dafa des wàññil ma ko mu wàññiwaat ko fukk mu des ñeen fukk mu ni ko Moussa mu ni ko lu xew mu ni ko wàññi laat na ma fukk mu xool ko ndax gis na ko gis yàlla ba bànneexu ni ko dellul maam day bànneex
mu dellu mu wàññi fukk mu des lan
fanweer mu des fanweer mu del siwaat ni ko da nga def ak sama borom mu ni wàññi laat na ma fukk de mu ni ko doyul demal mu dolli xool ba xolam sedd mu ni ko dellul mu dem mu wàññiwaat ko fukk mu des ñaar fukk mu del si ko lu la na nga def mu ne ah wàññi na ba ci ñaar fukk de mu ne ko dellul des na mu dem mu wàññi ko fukk mu des fukk mu ne ko dellul mu dellu mu wàññil ko juróom mu del si mu ne ko ah wàññi na ba ci juróom de mu ne ko dellu mu ne ko dëgg dëgg daal rus naa dellu daal moo tax sama maam ni wa tilka xamsu faridatin yakunu laha sawaaba xamsiina fi ixlaasi muqtadimi juróom fukki julli yooyu ñu wàññi ba ci juróomi julli mooy yoolu képp ku julli si sellal julli ga da nga am yoolu juróom fukki yañ jëkkoon a jox Muhammad kon nag këpp këppal ak këpp këppal ak nangam nangam ba mu xëyee nag ba mu xëyee waaw fajar ku ko jëkk a julli ku ko jëkk a julli tisbaar ku ko jëkk a julli takkusaan ku ko jëkk a julli timis ku ko jëkk a julli gee ku ko jëkk a julli ma dem ba mu xëyee jibril dafa dikk nii ki itil wu doo a bi wéti in fawru kal wu doo indi ndab ci ndox ma wan la li ñuy jàpp mu am ñaari fan muy sëgg muy sëgg jibril kàbbar muhammad kàbbar jibril sëgg muhammad sëgg jibril siggi muhammad siggi jibril sujóot muhammad sujóot sujóot benn la woon lu ko def ñaar waaw waa laaj ma dama ni ba jibril di jàngal muhammad julli mu taxaw mu taxaw mu sëgg mu sëgg mu siggi mu siggi mu sujóot mu sujóot yàgg ca sujóot ga nag bañ ca yàggee muhammad dafa ni jibril siggi na Muhammad ni nii fekk Jibril siggeegul mu sëggaat ñu ni kon nag na ñaari yu wéy ma dema ñii di déedéet Sidil Muntaha malaaka ya nga xam ni ndax am malaaka yoo xam ni taxaw rek mooy seen liggéey am malaaka yoo xam ni rukkoo rek mooy seen liggéey am malaaka yoo xam ni sujjóot rek mooy seen liggéey ba ni Muhammad ni tëll ñoom ñëpp dañu yëkk seen bopp sujjóot sujjóotati waaye yàgg ga ca sujjoot ba mu siggi boppam dafa ni siggi na mu sagaat moo wala ñaar ya awala man salal fajara aadama aadama jëkk julli fajar lu tax xiina ubati al ardi min al janna bañ ko jëlee aljana wàcc ko ci suuf wa adlamat ali dunia adduna lëndëm ci moom wa janna laylu guddi gi lëndëm kuk walam yara qabla dalika fa xaafa xawfan shadidan mu ragal lool xamul loolu lëndëm rekk wër ko fu ne fala man shaqa bañ ko wàccee ci catal guddi te fajar xaragul asamaan si lëndëm suuf si lëndëm gisul dara mu tiit lool fala man shaqa nag ba nga xamee ne xar na alfajiru fajar salaam mu julli rakaateeni shukrillahi taala ba fajar xaree rek aadama julli ñaari rakka sant ko yàlla lu tax bi xosooli najaati min dulmati leyli wali rujoo i nahaari benn rakk bi mucc gi mu mucc ci lëndëm mu guddi gi ak dellu si gi bëccëg gi dellu si fa lama tuuba alay kaana ila fajri fa salla rakaatayni shukran li xosoli tawbati wa zawali muxaalafati wa tuluuna tawfiq wa awaabay wa salaa baada sawaal nag kan moo jëkk a julli tisbaar ma dema ibrahima kañ keroog bañ ko jotee tisbaar la tombeel salla arbaan shukran li dahabi xamil walad bañ jotee doom ja muy isxaaqa ñii ni ismaila bu dee makka ismaila la bu dee baytul maqdis isxaaqa la waaye ismaila moo gën a garaaw jamonoy midi jàpp deux heures ci lañ dikk indi xarma jibril toll ko ca gannaaw ni allahu akbar allahu akbar mu gaasu ni walhamdulillah wa la ilaha illa allah ismaila ni allahu akbar allahu akbar looloo waral kat sunna ñeenti ra- ah, ah, rakk kabar yooyu ba am ñeenteelu fan tisbaar di jot nag mu julli ñeenti rakk shukran li dahaabi gamil waladi wali nuzuli lfidaai wali ridallahi xina nuudiya xasrat ruye wali sabri waladi ala hada zabxi wa mashaqatihi muy ñeent ñi jot gi ñu jot doomam ak njaqare gi ak gërëm gi mu gërëm yàlla ak muñ gi doom ji muñ muy ñeent rakk awala ma salla asra nag ku jëkk a jul tàkkusaan yunus ñi ni suleymaan waaye yunus moo jëkk a jul tàkkusaan kañ xiina an jaahu min dulumaati arbaatin azillati walleyli walmaai wa batni alxut tarxis ga mu tarxisoon ak guddi gi mu ne tombeel ak ndox ma ak biir jën wa law laa intidaarakahu la labisa fi batnihi ilaa yawmi yub'asuuna muy ñeent wa awalu man sallal magriba nag Isaa Isaa moo jëkk a julli gee ah timis lu tax mu ñett rakka te du ñeent ma dem fa rakaatu luula li na fi uluhiyati an nafsihi ma dem wa saaniyatu li na fiha an walidatihi wa saalisatu li isbaatiha lillahi taala rakk bu jëkk bi dàq ne ko yàllaa ma ñaareel ba dàq ni sama ndey du yàlla ñetteel ba ni yàlla rek ay yàlla waaye déglu leen ma waay timis laa ni isaa ko jëkk a julli boo gisee mu ñetti rakka rakk bu jëkk bi dafa dàq ni du ma yàlla man kat du ma yàlla jaamu yàlla laa ñaare bu ni sama ndey ji ni yàlla du yàlla jaama ma ñetteel bu ni yàlla dong nga yàlla mu jeex wa xiila xufira li daawi alayhi salaam ila xuróobi fa qaama yusalli arbaa rakaatin fa jahida ay taiba fa jalasa fi saalisati ñi ni déedéet daawooda bañ koy jéggal moom it da fekk timis lu jot ba waroon julli ñeenti rakk julli ñeenti rakk sonn sëlmal ñu yemale ko foofa waaw wa awalu man salla isha nag kan moo jëkk a julli gee Musa alayhi salaam xiina xaraja min xaraja min madyana ba mu génnee madyana wa dalla anu tariqa wa kaana fi gammi almarati wa gammi axi haarona wa gammi firawna wa aduwihi wa gammi awlaadihi mu am ñeenti njàqare yoon yu ko réer ak xaritam bay di mbokkam di haarona gisatu ko ak firawna mi nga xam ne mooy noonam ak njàqare doom yi mu amee te xamul na mu koy def fa lama an jaahu llahu min dalika kullihi nag salla arbaan ba ko yàlla xettile ci yëpp nag mu julli ñeenti rakka sant ko yàlla waaw wala man salla witira nag ku dëkk julli witar nabiyuna alayhi salaatu wasalaam amma rasula saa sallam malaykat samawaati fil witri fa kaane imaamul anbiyaay baytul maqdis wa imaam malaykati indi sinati muntaha
وسر سر العيش وجودي
waay moo tax góor gi Alioune Guèye ni sa pap sa maam mooy Souleymanu Amrin moo sawin bi najdatin muy xalili diinin sunniyin li Muhammad alaan fu san dallat أمير استفيت ديت فضامت وخامت ليلها بتاجد أتاو بخاو السودي سلم وسلمة فقام بسيف الأمن بالأسم مجرد فجاهد فيها بسياسة والندى وعلم وعلم فاهتدى كل ما تدب فزارت سوايا في أخرى جميعا منهم بفوج راكين وسجد لأصواتهم في كل يوم وليلة دوي ندى كل ساعة وما كدنيا حمد يوم فصلوا على المبصر فوتم وعبا من الله في دارين وكثير الدنيا حمد يوم فصلوا على المختار فطم مواهبا من الله في دارين وهو كفيل لا حكيم ولا إله منيق بالباب الله والله والهدى مع الطعمين ويوح رسول فكيف يطيب العمر إن دمت هاؤنا وأنا الذي لولا هدى سبيلا ma ni ma ni leen fa kayfa leen na ni fa kayfa فكيف يطيب العمر إن دمت هاؤنا wahanna alladi وانا الذي لولا اتبع سبيله sama maam nee na waxaat na ci laqad haaja déggal Maodo waay nee na fa kayfa yatibul umru moo mën a laaj Malick na la sama dund di téyeeti waay in dumtu ndeeb sax naa aw naa fii ci Sénégal wahën na déggal hën naa wahin naa wa minhunna lahunna biha zaatu shamaili wal aymaanu hay noomoo
وانا الذي mu ni fa kayfa yatibu naka lay teer al umru dund ba waay naka lay tee al umru dund ba indunti neem sax naa xaw naa fii man alaaji Malick waxoon naa te nekk foofe la di ka nga xam ni law laa bu doon moom daa sànku sabili yoon آه وانا الذي مم، قطب عزيز مطهر رؤوف رحيم صابر وشعله شاهد.
وانا الذي فلا يهدي لنا المنى فلولاه أقم لا يكون فتيلا
ah sëñ Abdoul Aziz eh xanaa ma wa aada te aada nag gaa ñi wa aada leen ma yoxoodu ma it wa aada li na دليل عالي ذو تصديق فاز بي وضيته في هلاك غير منعزم على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما آمنا بسهبه وجيم عشرة من في قريش ثواب ناديا قومه والقوم في الحرم على نبي والد أجمعين سلام ربنا دائما آمن بسبيل لكنه لم يزل يقفو مواسمهم يرجو من الله عونا غير متصم على نبي وعليهم أجمعين عليهم وبلا الكرم